ku xam Modou Lo xam ni munul mel neneen nu dul nii ndax sunu mbokk yi nga xam ni bokk nañ ci ñi njëkk a dem bitim réew pour daani seen doole ñi ci ëpp fii lañ jóge loolu moo tax ngeen doon ay nit ñu yaatu loolu moo tax ngeen doon ay nit ñu am jom loolu moo tax ngeen doon ay nit ñoo xam ni dangeen ngeen nangu leen keneen lu mu mënti nekk ndax yéen ay liggéeykat ngeen yéen dox ngeen ci àdduna bi lu bare bare bari balaa ñeneen yi di fa dem loolu moom mooy dëgg mooy histoire u Sénégal buñ ñëwee ba fii nag am na kàddu yoo xam ne rek mën nañ ko fi yëkkati ndax man li ma bëgg mooy fu ñu mënti dem ñu wax ci soxla askan wi dégg naa démb premier ministre Ousmane Sonko di ma ne nañu ñëw ñu def débat dama bëgg dama bëgg xam naa ni xam naa ni daf maa nam xam naa loolu mais dama bëgg maa moom ñu def travaux pratiques travaux pratiques li muy tekki mooy département bu ñu dem ñu daje fa waxtaan ci département bi bu boobaa mën naa koo wax li xew ci département bi lañ fa def wax ko li des ak li des nan lañ ko war a defee ñaata moo ko war a def ak ci ban biir lañ koy defee defe naa ni débat boobu moom moo gën a yitteel askan wi mu doon un débat de proximité bu ñu ñëwee fii war nañ fee mën a wax problème mu sécurité fi ngeen féete bu ñu ñëwee fii war nañ fa wax problème mu ndox xam nañ ni fii suuf si dafa xaw a dëgër pour nga alimenter ko jafe na mën nañ ko waxtaanee fii bu ñu ñëwee fii mën nañu waxtaanee waxi tali bu ñu ñëwee fii bu ñu ñëwee fii war nañ fi mën a wax nag problème mu immigration irrégulière ma ciy bi jaale di jaale ñii nga xam ni ñu ngi jóge ci localité bi ñu waññi ci juróom-ñetti fukki xale ak juróom te nee nañu am nañu des mais juróom-ñetti fukki yooyu ak juróom ñoom ñëpp fii la bàyyeekoo ñoom ñëpp gis nañu seeni néew fii lañ leen denc wala ñu denc leen feneen ñu ngi jaale seen njaboot. loolu nag ñi waxoon bu ñu ñëwee ñaari weer dinañ faj soxla yi xale yi xaar ñeenti weer gisuñu leen moo leen dugal ci lii yëpp ma xam ni kon yéen da ngeen ngeen ni juumoon ngeen d'accord ngeen ni il faut que ñu soppi affaire bi il faut que ñu jooyanti ko te incha allah dinañ ko ànd ak yéen jooyanti ko. mais ñaan aussi vraiment di ñaan responsable politique yëpp dañoo nekk ci campagne électorale mais dañoo nekk Sénégal bokk ndey ak baay nañu moytu wax ju yàq nañu moytu jëf ju yàq Sénégal dañoo sonn jàmm moo fi xet ñu ñëpp ay mbokk lañu loolu moo tax coalition bi ñu yor muy coalition jàmm ak njëriñ di kon na ne toute forme de violence verbale comme physique fii koo fi gaañ di nga ko seeti koo fi gaañ di nga ko masawu koo fi rey di nga ko jaale ji noonu la Sénégal bindoo kon nañu moytu loolu moo tax suñu coalition ñu tuddee ko jàmm jàmm ju sëkk waaye nag jàmm dafa war a ànd ak njariñ su àndul ak njariñ jàmm ji amul njariñ jàmm ja du ko kenn du ko soxla waaye boo amee njariñ te amoo jàmm mën nañu wax ni loolu it problème la nden banndiraaɓe ɓurnin koɓe mbiɗa juuro moon mbiɗa salmin moon mbiɗa yett yetta moon kon moƴƴuɓe kon tedduɓe kon moƴƴuɓe kon ci biir ñaa fa nekkal seen